moment bu ne voilà euh, nuyu leen bu baax a baax sant leen gërëm leen euh, ci ni ñuy toppee euh, safo ak a teewlu mhm. nuyu ñi ma bokkal plateau teewu maa lay ziar bu baax a baax Aliou Sow yéen ñaar yéen ñaar yéen war ngeen xaste yow war nga koo wax sa bu set daf may daf may énervé yenn saa yi quoi sauf yan bi. yéen ñaar xanaa bokkoo leen si dugg ci ñaari yow da dugg foo xam ne xajoo ah. yow sa yoon nekku ci. yow bu dee ñun a people. fii nga ñuy bokk ah. fi ngeen di wato. Ah. arrêté leen seen caaxaan. y' a y' a plus de monde au balcon ah. plus plus même. Fatou plus ma ma ma dem wala <laughs> plus même. ay rabu leen ni am voilà euh, actualité dañu koy euh, dëxëñ rek ci li nga xam ne moo gën a fës ci. Euh, Euh, milieu people bi bokk na rek euh, ci ñi nga xam ne nag doon nañu ñu gën a fës di actualité ginnaaw mm. nomination yi mbirum euh, RTS la ñuy taxaw tuuti. Mm-hmm. ndax nag gis nañu Pape Alé moom lañu def directeur bu S bu RTS. Mm-hmm. mu doon andi na polémique ci réseau yi ndax ku ci nekk yaa ngi nekk di yëkkati kàddu di yëy yàb bi jëmale ci moom. Mm-hmm. ci jëmmam na muy doxalee wala sax kan mooy Pape Alé ak yenn ci seede yoo xam ne jotoon nañ ko amal ci bi réew mi nekkee ci yenn ci ay jafe ak xam ne mu ko doon wax ngir rek euh, gindu sénégalais waaye nag ci leneen rek la ñuy dem ci boobulee euh, kër di RTS rek euh, boobule kër gu mag nag mënees nañu jàpp rek ni daal depuis 2018 lu toll ci 60 employés yoo xam ne dañ leen mettre au frigo dañoo yeb waa Futurs Médias mais ndekete RTS mi ngi toj hmm? Hmm? man xam nga dañoo yëpp waa Futurs Médias hmm. ndekete RTS mi ngi toj bu ñu sukkandikoo euh, ci ki nga xam ne nag euh, ngeen ngeen baal ma rek Moustapha Cissé moom mooy euh, président syndicat bu professionnel bu RTS moom nag yëkkati na ay kàddu di xam ne rek moom depuis 2019 ak léegi plus de 60 personnes yoo xam ne ñu ngi doon liggéey foofu ca RTS dañ leen frigo y compris moom ci la bokk muy mbir mu doy waar bo 60 waaw ba démb ñu ngi gis euh, vidéo euh, Khady Aïdara moom nekkoon RTS doon fa euh, liggéey moom it loolu vidéo yàgg la di ñaawlu anam bi nga xam ne moom la nekkewoon RTS ñu xëy rek ah desk sport voilà voilà Khady Aïdara mm-hmm. génn na yëkk ci ay kàddu ci doxalin bi mm. mm-hmm. léegi nag jot nañu mais bon am na ci ñeneen ñoo xam ne jot nañu leen tudd parce que même laataa ñuy bàyyi. dañ leen euh, frigo woon. ba waral loolu moo indi seen seen arrêté ñoom ñëpp. Euh, yàgg na ñi ci tudd ci début bi nee nañu Tidiane Bari ci la bokkoon temps jamonoy RDS te Tidiane aussi ça fait longtemps ah. Tidiane loolu ah, lu lu yàgg la. Uh-huh. Seynabou Koor ak Ñaaña euh, Sidibé Mbaye Thiam Mariam Selikan. moom mi ngi mi ngi pare mi ngi pare Macky Sall. waaw mm-hmm. moom mooy jabaru. Jean-Baptiste Jean-Baptiste Tine. d'accord. Mm-hmm. waaye nag waaye nag euh, ki euh, mais RTS euh, comme tey doxalin bi ñuy fay. te non non attends Fatima danga may may foofu rek. d'accord allez-y. gis nga il faut que lenn am. Mm-hmm. ni ci xam ko. Mm-hmm. et c'est propre aux médias sénégalais. mettre au frigo. du ñoom rek ñooy def mettre au frigo partout. loolu moom. ma mais bu bu non non man dama wax. Mm-hmm. waxu. ku xam métier bi. ku ci yàgg. ma ne mettre au frigo man mii Cheikh Tidiane nañ ma en frigo. au frigo fan noonu. Euh, fële dunia benn baat teg na ma au frigo waxatuma. ah da ngaa mën tooñ nag. waaw mais non non c'est nit ki bu ñëwee. Hmm. day indi ay moom ñi mu mën a liggéey lay liggéey ñeneen ñu teg leen au frigo. loolu yàgg na am RTS. mais day amal ni. waaw frigo même fii eh ma ne fii. fépp la fépp day am frigo fan fan. man sax euh, boo motul léegi ñu def ma fii au ah, frigo ah bëggee ñu développé. <laughs> léegi non non non non c'est damay mettre au frigo faible la am faible euh, la am loolu euh, loolu loolu rek pour information bu tudd. dañu précision wa Cheikh waaw waa waa Pastef nee nañu nee nañu waa Walf Moustapha Diop daf ma war a mettre au frigo <laughs> ah. Ah? mais bu ñu ma mettre au frigo frigo rek perte. <laughs> man man kenn doon frigo man. du guleet bi. Ah, nañ la bàyyi ah non ah? non non bu dee mettre au frigo. waaw mettre euh, ah, ki doon présenté euh, journal 20h bi Rouguetou Ba. Rouguetou moom dafa toog rek. parce que mhm. jàllalewul ci li mu wax ndax daf ko mhm. posté ci réseaux sociaux yi nee mhm. euh, dañu ko woo fekk ko salle maquillage di ko teg pression pour mu gaaw ñu sant ko. Mhm. na jàllale information comme quoi que. Mhm. arrêté nañ Ousmane Sonko. Mhm. ci noonee nag moom fi mu toog amul ci ban source la koy sukkandiku moom ci propre responsabilité mu bañ a jàllale information bi mais nag après ci lañ ko sanctionné yóbbu ko rajo après finalement jotatul salaire yooyu day am waaw surtout salaire bi ñuy coupé c'est ça le problème. non dañuy coupé ah, salaire yooyu day am de. yow de déjà yow maître de frigo ni kii arrêté ko liggéeyam ngay dem di coupé ay salaire am. Euh, Fatou Faye Fatou Faye. non salaire bi wax c'est la waaw c'est pas normal. yow ñu coupé salaire am. yow sanctionné nga ko pare ñu dagg salaire am. yow sanctionné ko au frigo foofu ah. loolu rek nga mën. waaye bu ko kii nangam dégg nga. mais c'est que c'est que il faut que il faut que il faut que ñu xam na xam nga gis nga naan wax lenn. Mm-hmm. journaliste. Mm. da ngay gëm sa bopp. ok. mooy journaliste ci boppam da ngay gëm sa bopp gis nga bu ñu la bëggee teg lenn xoolal nga ne leen ay eh, am leen seen bagage ah, man loolu laa gëm billaay wallaay eh, yow nii ngay waxee nii nga war a waxee te yow jànguloo loolu yow liñ la jàngal mooy lii lu jub yow mën ne defal buñ la buñ la ciy dàq gëmal yàlla waaye nag waaye yow nga bëgg a changer yow sa bopp parce que lan ay prébande ou bien ay ay ay ay ay avantage loolu da ngay yàqal sa bopp dans le métier. Mhm. journaliste da ngay am fit. journaliste da ngay. am fulla yemale am ak ñàkk. sa dëgg voilà da ngay yemale am ak ñàkk. Mhm. kooku waaw professionnel ah. la loolu la xoolal am na am na voilà mais kii euh, Cheikh Yane Gomis euh, juste benn affaire benn benn rappel rek. wallaay Ruki xanaa kii mmh. xool ah. euh, na ñoo xam ne dañuy mettre figo ba pare jël seen salaire. Mmh. mais par exemple y' a y' a a la bon évidemment. Lamine Lamine Samba c'est le moom bi ñu ko frigo mi doon jot salaire am. femme de la femme de Farba Ngom doomu Hadj Mansour mm-hmm. ça fait douze ans mm-hmm. euh, euh, mi ngi RTS mm-hmm. liggéey siwul mais ñu ngi koy fay c'est pas normal mais loolu scandale nag moo bari moo bari RTS xoolal xoolal dama lay wax benn affaire dama lay xoolal dama lay wax benn affaire lii mooy lii mooy réew mi voilà non c'est vrai yow nag nga mën a nekk eh, eh, ci foo xam ne nga jël mettre au frigo ay ñoo xam ne. pare pare nañ pour liggéey. am nañu xam-xam. nga dem jëlim ay Masamba booy ca bëti nga ñoo ñoo xam ne sax du ñu ñëw. loolu du ñu def loolu mm, waaw parce que pas parce que ñoom fii du ñu xool ndax nit ki mën na wala mënul ñoo xam lan lay xool nit ki ndax déggal na ma ndax mi ngi mi ngi nekk ci sama ci sama ci sama dunguru ci sama sama mm-hmm. dunguru mm-hmm. fii boo ko nekkul mm-hmm. fii kenn du kenn ñoom foofu c'est partout gars yi buñ la ñemewul xalaat ni mënuñu la manipuler duñ la duñ duñ la mettre en en en en avant c'est impossible ñoom loolu la ñuy dund ba ci présidence de la république ba ci ministère yi mm. du ñu jël koo xam ne teg ko seen wet mm. mais am na ñoo xam ne bu ñu leen fekkee par exemple ci yenn postes yi ñu am ay responsabilité mm. am ay compétences comme ni ñu koy waxee mais bu fekkee ni ay wóoruñu noonu ce sont des gens qui sont pas euh, des moutons de Panurge eh dañ leen fay dindi ah seen yoon nekkul ci kii amal na njëriñ réew mi wala kii amal na njëriñ tele bi faale ñu loolu leen intéressé mooy kii wóoruma ko parce que kii lu ma ko wax du ko def wala wala c'est pas am na ñoo xam ne dañ may nettali mm-hmm. dañuy nekk sama wet bu ma sëqatee ñu ne yaaram ah, kala ah. ñooñu laay jël teg leen sama wet te ñooñu mm-hmm. des fois yàlla dafay def ni dañu am ay manquement mm-hmm. parce que si loolu lañ koy jéem a rattrapé di dunguru ndax mën a euh, seen manquement yi ñu mën ko compléter parce que loolu rek la am parce que sinon te ko ki leen ki leen jiite aussi loolu daf koy arrangé ci benn côté parce que yoonam nekkul ci mhm. euh, affaire bi avancé li li ko intéressé moom mu avancé ci li muy def mën a contrôler mbir yi mhm. et c'est ça qui n'est pas rek coppite parce que ñu bëri dañ doon euh, xam ne rek euh, ñu ngi xaar RTS changé mhm. yenn ci ay jafe-jafe di fàttaliku rek mais nag RTS dina amaat dina amaat ay kii de ay frigo de nii nii nii dina amaat waaw ña fa ña fa woon ñoo xam ne liggéeyuñu di topp daan topp lu neex Racine Talla nañ waxante dëgg fii lañ fi toog nawet bi jot ñu dem Pikine naan Pikine amul ndox tawul après la pluie c'est le ah, loolu amul duñu wax li am information di di di doxalee neneen donc RTS bu ñu invité Cheikh Diane Gomis hmm. invité Aline Sow hmm. ma xam ne ñu ngi ci yoonu changement man ñu invité ma RTS man pour ma wax ma xam ne ak le nouveau directeur moom je pense que man non non ak directeur bu bees bi eh, eh, bonne chance à Pape Alé man la man il est démocrate moom eh, avec moom c'est possible c'est possible avec lui man la man duñu may éviter man ça c'est pas Pape Alé. ça c'est pas Pape Alé. jënd naa lor bi na Pape Alé Pape Alé Pape Alé moom Dakar Matin. na fa ay ñoo xam ne dañ koy am na Dakar Matin ñoo xam ne du leen fa mës a invité. boobu muy dem waaw nañu xool at bi di ñëw dina changé ñan la ñu bari ci réew mi laa wax. de toute façon loo invité ñu ñenn ñi am na yoo xam du leen invité Dakar matin. parce que boo doon wax lu ñaaw ci Ousmane Sonko wala loo xam ne neexu leen. du ñu invité na ci ñoom c'est pas vrai xam naa dañu ci am nañu ci invité lenn lenn bu fekkee ni 100 personnes la ñu la invité 99 yëpp waaye yow kenn ki sax buy ñëw sóoraale ñu woon yenn yu muy wax ni parce que des fois duñ ko dina changer de dina changer de luy amoon RTS. donc man gëm naa Pape Alé man. man personnellement j'ai confiance en lui. li ngay def nii baax na li ngay def nii baax na. di parce que dina ko gën a encourager. mais je vous assure d'une mm-hmm. chose. Mm-hmm. c'est que RTS ah. ils seront sous la coupole. de, de, de du chef de l'État ak du gouvernement du Sénégal loolu c'est pas c'est pas mais de manière objective je voilà de manière objective sànni ko fële du ko def de non xam nga moom moo jëloon micro RTS sànni ko fële jamono boobu RTS nekkalu ci woon askan wi loolu dëgg dëgg gars yi après gars yi dañuy daw de ku nekk il est démocrate wax Ousmane Sonko wala ñu dem télé aussi déjà waaw waaw waaw kii waxagul voilà euh tu sais ce point Fatia wala ma noppi <laughs> yow mënoon na ko. may wax nga may jéem a kii nii. waaw waaw waaw sànni sama baat sànni moo benn affaire boo xam ne man xaw ma lan la gis nga man. man euh, xam na laa gëm. gis nga comme par exemple maa ngi liggéey ak Fatou fay man damay gëm li ma Fatou fay wan ci liggéey bi. man loolu laay gëm. loolu la d'accord ba ma gis leneen loolu moo tax gis nga man. gars yi wax ni Pape mu ngi nii moom xam na xam naa. Pape Alé bi ñu doon nekk fële Tëngéej la ñu commencé di dem ca Mbaye Diagne. temps Mbaye Diagne ma jaar seen temps Mbaye Diagne bi fay nekkee muy bind may bind. Mhm. dégg nga mu nekk euh, dégg nga muy wax ñu ñuy dem. Mhm. ñuy ay guddi. ñu dem ci ay meeting ay guddi man ak Pape Alé. Mhm. man gëm naa ni mu doon liggéey ak mu doon kaase un homme très bien je le connais très bien c'est un homme très bien en tout cas je pense on est tous euh, ci coach xoolal voilà ñu ñu ñu woy rek dañuy euh, souhaiter une bonne chance mais yenn ci seede ñu mën a ànd ci moom jàmbaar la gëm na mhm. li muy def dëggu na mhm. te comme changement lañ bëgg ak coppite bu nguur gi amee euh, yaakaar ci moom yaakaar ni dinañ di changement dañu koy ñaanal rek bàyyi ko mu doxal ñu bañ fee gisati Euh, li nga xam ne ah, moo amoon ci d'accord ñu ñu ñu dem rek ci beneen ponk euh, balaa waxtu wi duñu duñu ah, xoj <laughs> voilà euh, dafa am lu ñu bëggoon andi rek mhm. mooy dafa am ab as ndaw boo xam ne mhm. merci merci dafa am euh, am ndaw boo xam ne li li ma wax ni c'est très intéressant benn femme bu mhm. yor benn euh, appartement mais meublé la ko def mhm. daf ci amoon ñoo xam ne ay kilifa lañu woon ci réew mi waaw benn ministre ak benn député mhm. jëloon foofu parce que moom nee na député bi moo ko fay si loolu c'était euh, deux mois moins de deux mois avant ñuy dem élection mais ñoom dëkkuñu fa amoon na ay xale yu jigéen yoo xam ne ñoo fa daan nekk am na ci ñoo xam ne xàmmee na leen ñeneen ñi xàmmewu ne parce que am na kenn ku mu ci mës a tase si escalier mënu ko man waa xombal la léegi nag euh, bi mbir yi amee njëkk na ko avance deux cent mille moom député bi mais mi ngi fa daan gis ñeneen ci ñoo xam ne mhm. ñoo daan bokk ànd di nekk mhm. di nekk di comme xàmmee nañ leen quoi ci ci ci ci espace médiatique bi ak ci politique bi ak fi ñu bokkoon mhm. dem nañu ba bi élection yi jubee guddi gi dañ doon gis la seen dem ak dikk di bëri Ouest Foire la maa ngi ñëw ci tegtal mm, yi léegi waa kay euh, dem nañu deux mm-hmm. cent mille lañ ko mës a avance def nañ fa mm-hmm. un mois ak euh, vingt trois jours mm-hmm. fayuñ ko su leen di woo téléphone duñ leen jot parce que bi mu ko njëkkee woo def na ko ne bàyyi ba campagne yi passé bi campagne bi ay guddi 4 heures du matin la fa jooju doon ñëw ak benn ci ministre yi ci tegtal rek ci ministre yooyu am na ci kenn koo xam ne euh, ni nan laa ko mën a na ma ko mën a liyaaree rek mooy ministre boo xam ne su daan génn wax rek hmm. dëkk bi yëpp xam ne kii wax na kawteef hmm. ci noonu laa ko mën a liyaare a ba ko <laughs> indiwaat tegaat ko ci bi léegi euh, femme bi nee mhm. mhm. te bi ñu demee euh, yi dafa waxtaan ak moom ne ko bu élection yi passé incha allah dinaa ñëw te xam naa ne suñ gañee bi mhm. ci noonu ba nim passé ba nim passé waaw loolu la ko wax suñu gañee ba nim passé Mhm. su koy woo téléphone du ko jël. day insister di ko woo. Mhm. amoon na koo xam ne benn xale bu góor courtier. Mhm. Euh, du nom de kooku mën nañu wax turam. ndax mbay la tudd moom moo ko boole ak moom. andi ko fa ne ko kii sama grand la. Euh, moom moo ko booleeg mu su ko wooyee daf ko naan man grand bi déggatuma ko xaw ma ci lum ne bi mu ko mujjee jot nag moom femme bi. moom député bi daf ne ko bu ma woowati. wax naa la bu ma woowati. saaga ko coupé. te nee na munul dem. Euh, porter plainte parce que amul benn preuve buy wane ne. Mhm. Euh, këyit la ñu sekk ci bi mu koy loué euh, appartement bi. te moom aussi dafa ragal ñu ne ko la muy def c'est illégal. Mm. ndax location bi mu bi mu nekk def xamu ci dara maîtriser wu ko te kër gi mu ne jëkkëram moo ko moom te jëkkëram mi ngi Amérique donc coow lay bañ mm-hmm. soit mm-hmm. instant bi dafa dafa sës parce que waa ji daf ko saaga daf ko xaste bi nga ko yoreel xaalisam te kilifa la ci réew te nee na bés bu génn ministre bi moo ko saaga wala député député bee ko saaga mais moom ministre bi daan na ñëw ak yenn si ay collègue am ak ñoo xam ne xàmmee na leen bu baax ci réew mi saa bu ñu xëy toog ci télé yi di wax nee na nag euh, dina parce que man dama fay dem mm-hmm. su su su mercredi jàllee te woowu ko parce que dañu ko ñaan. Mhm. dina dem porter ji ko plainte euh, commissariat central. Mhm. bu loolu weesoo it dina génn ci média bi wax kon à tout moment lundi bii di ñëw kooku mën naa indaale. Euh, ma ne léegi waa ji nag na ko fay. dina génn wax. waaw bu ko fayut xam affaire yi dina. député bi da ngay ne député wala ci bi la waxante <coughs> hmm. mais daan na gis yeneen kilifa yoo xam ne dañuy ñëw euh, di ko nuyonteeg moom mës na leen abal micro onde mës na leen abal yenn ci ay affaire te am na ci ay affaire yoo xam ne bàyyi nañ ko ci appartement bi te ah, neen ah. bés bu génnee dina ñaaw ah day na waar xam naa danga si ñëwaat xanaa balaa boobu dina fay balaa nooy di génn waaw da ngay génn si wàcce bi nekk témoin rek mën na servir kii comme moom jàngul te xamul day dem ñu ne ko li ngay def ni c'est illégal mhm. location euh, kii yeeg yooyu mais bon yooyu réew mi te mhm. aussi fi mu mhm. tegtal foofu noonu wala ma jàll ci tegtal yi koñ bi mu wax koñ <laughs> laa kii de boo waxee ah, dinaa ah, xam naa te te ci loolu West Foire la daal. jege jege jege na fu ñuy jaayee lekk loolu. ah. Mhm. ah daa am na tam pharmacie bu nekk à côté. kon jeex na xam ah. naa ko ah, waaw ma yeggali wala. ci ci ci euh, euh, am leeral def na papier bu am solo ci proxénétisme ak euh, maanaam mbirum jaay sa bopp yoo xam ne. mu mhm. ngi am. Mhm. doonatul léegi ci mbedd bi mais ci biir kër yi lañ koy defee dafa xaw a méngoo ak dossier bi te xale yu jigéen ñi nekkoon ci appartement bi ak ñoom député yi ak ministre yi. dañoo xëy xëy xëy rek fab seeni i bagage dem Mm. ndax femme bi nee na ñëw na gisatuma kenn porte bi sax tëjuñ ko fa la ñu bàyyi clé bi est-ce que du ñee ñoo leen sant ñu génn dem waaw loolu yëpp altine incha allah daan dañ ci ñëwaat di la jaajëfal bu baax rek Fatima Kidé ci people mm. donc di la jaajëfal di jaajëfal euh, Théodore Semedo mm. Aliou Sow suñu invité yi fi ñëwoon di jaajëfal Cheikh Tidiane Gomis ci coordination bi tamit di jaajëfal ci côté technique bi Ajaratu Penda Diallo Gueye Bintou Fall Issakha Diagne Pierre Dieng ci son bi di leen di jaajëfal